kel jik feeyam ci géeji leeri ngërëmi boroomam jërëjëf muy kàddu yoo xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha suñu sang bu tedd bii moo ko seere woon ci daara Hizbut Tarqiyyah mu ne muy lañ jomb lool ñu ñaan suñu borom mu ko fi lool te ànd ak wér